Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Class TV to learn English with Mr. Ba. daleen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bii di English Class TV ngir jàng anglais jaaree ko ci wolof ànd ci ak Mr. Ba tey nag vidéo bi wala leçon bi moo ngi aju si benn mot boo xam ne laaj yi da ci bari lool muy baat bi di about about noon lañ koy liiree e ba out about bul wax ne about wala about wala ëbbu bañ a liir tee bi déedéet about about noonu lañ koy liiree mot bi buñ ko waxee ci anglais lan lañ si jublu ndax lu ñuy jëfandikoo ci nit rek la te duñ ko jëfandikoo ci leneen ndax moom pour laaj kese mooy tax muy ñëw wala dañ koy jëfandikoo ci leneen lu nekkul nit ndax tamit buy ñëw waat rek lay ànd ak wala mën na ñëw te ñàkk ànd ak waat ak lan lañ si jublu bu ñu ko waxee ci anglais incha allah dinañ ko leeral bi ñu njëkkee mooy wat bi ànd ak about lan la about di apporter ci what bu àndee ak moom bu ñu fàttalikoo wat bañ ci question w ci question yi dañu doon wat mooy lu ñuy jëfandikoo di laaj loo xam ne nekkul nit comme man la what is your name mooy noo tudd what is that mooy lële lan la wat is this mooy lii lan la wat do you want mooy lan nga bëgg léegi nag what bu àndee ak about comme que about moo tax a jóg vidéo bi dañu leeral loolu bu boobaa li war doon tekki dafay dolleeku ndax booba laaj bi dina mën a jëm si nit muy lan bu ma ne la how are you mooy na nga def nga ne ma I am fine au lieu yow nga may waxaan ne ma how are you bu la neexee directement nga ne ma what about mooy yow nag wala bu la neexee nga ne ma bu ma ne la I want to go with Modou dama bëgg a dem ànd ak Modou nga ma waaw Ali nag bu la neexee danga naan ma what about Ali waaw what about uh, Ali mooy Ali nag léegi ñu dem ci beneen waxin mooy kañ lay tekki lu demee ni si mooy ci lan nga nekk ci lan ngay xalaat ci lan ngeen doon wax ci lan la ñuy wax loolu boo koy wax about day ñëw ok bu ma nee what do you think about what do you think about mooy ci ban mbir ngay xalaat ci lan ngay xalaat what do you think about dégg nga ci lan ngay xalaat wala ma ne la think about bu ma ne la xalaatal ci mbir bu ma ne la think about mooy xalaatal ci mbir moo wax tur bi think about your job think about your family mooy nga xalaat ci léegi walla xalaatal ci sa famille kon donc da ngay gis ni about gi day gàttal wax ji mais li muy ëmb ci maanaam mi day xawa a bari mooy li muy signifié donc bu ne what do think about mooy ci man mbir ngay xalaat ba léegi bu mu ne la nañu wax ci nangam wow let's talk about the job nañu wax ci liggéey bi kon baatu si bu gàtt boobu des fois about moom lañ ko gën a mën a déggee ne moom lay tekki ci leneen ndax moom rek du am benn signification boppam let's talk about that nañu wax ci loolu what do you think about your job lan nga xalaat ci sa liggéey bi what do you think about about yourself lan nga xalaat ci sa bopp what do you think about the situation waaw situation bi yow lan nga ci yaakaar donc kon si si about mën nañ ko jëfandikoo ci côté boobu te li ñu njëkk mooy amul limit laaj bi fu mu jëm rek mën nañ ko fa jëfandikoo muy ci nit wala muy ci lu nekkul nit ba tey ci loolu bu ñu demoon ci jaaykat mën ak yow ñu ànd ñu gis ñaari saak benn bu weex benn bu bleu yow nga ne ma bu weex bi laa bëgg I prefer the white one maa ngi wala I chose the white one maa ngi tànn bu weex bi su ma la bu mu la bëgg wax ne la waaw bu bula bi nag lenn rek laa mën jëfandikoo mooy what about the blue one what about the blue one waaw léegi bu blue bi nag lan nga ci wax dégg nga loo ci xalaat what about this lii nag beneen bi des te gën a yaatu tim maanaam mën a ànd ak lu bari mooy ba bëgg a wax ne I am about maanaam about bu ñu ko bëgg indi mu ànd ak verbe I am about mooy maa ngi nii ci waajaayu nga wax jëf ci am about going home back maa ngi ci waajaayu dem kër ga eh am about um, doing that maa ngi ci waajaayu wala maa ngi ci yoonu def loolu am about uh, taking off maa ngi ci yoonu wàcc ok maa ngi ci yoonu wàcc am about getting off ba léegi maa ngi ci yoonu wàcc bu dee da nga yéegoon bëgg a wàcc kon I am about we are about you are about they are about he is about she is about it is about please lu ñu bëgg a wax ne loola ñoom ñoo ngi ci waajaayu def ko wala ñoo ngi taxaw ci loolu rek moo leen tax a jóg pour ñu mën ko complète boo ma fekkee may ranger samay matériel nga ne ma what are you doing Mr. Ba lan ngay def bu ma la bëgg a wax dama bëgg a ñibbi dama naan la am about going home wala maa ngi si waajaayu ñibbi mooy am about going home back maa ngi si waajaayu ñibbi.